ñu ko desal fii bopp réew mi bareetul mais mu war a dem di xalaat ñu ci laxas leneen ak leneen merci à Macky Sall di indil waa Amnesty di ñuy ñuy suñu biir réconciliation chaque année état du Sénégal ci coobare suñu borom ak ndigalam di gérer les milliards de ce pays lu ñuy ku ci yëkkati kàddu ñenn ñi di wax pour bëgg leen ñu gis leen ak télé yi ak caméra sàcc fii dugg na fi génn fii mu bàyyi quel soit le chef d'état qui venir après lui xool les finances publiques de ce pays naka la ak comment ça s'est passé mi di nous loi ma wonno no on kono ngande ko woni anni makko kanko mawɗo makkisal ko yo gila omo ɗo o heedi e hoore leydi ndi ko adino mo yaha yimɓe ɓe dokkodiri juuɗe jarlodiri jaafodira mboɗo sikki noon juulɗo so wi yo yimɓe jarlodiri jafodiri o haalani ko boni e ko faami jawdi ñaamaandi ko fewna ko waɗa budget leydi ndi ɗum nanna kay luwa amnesi mbaɗat ɗo ene moƴƴi ɓe paama ɗum probléme uji noon politique waɗi war hooreeji waɗi maayɓe waɗi gaañiɓe waɗi boniraɓe e goto fof ɓernde mum wonko woni hen ko tulmi walla ko mekkini o waɗa loi damnesti wonde jaam ɗum ko omo toppiti leydi ndi nde woni ɗo nde omo yiɗi kadi leydi ndi kontina e yaade jame cellal kital caggal makko kanko mawɗo leydi ndi président makky ɗum waɗi min farba ngom mboɗo waɗi fiére e lamtoro makky no feewi e golle mum e jikku mum ɗuma ko ratte demoon naa ci émission Maïmouna Ndour Faye jël fa kàddu défendre cette loi d'amnistie ñu indi ko fii ci assemblée nationale ma ko war a voté ñi ci jëloon kàddu di mon ami Clédor tontu na mon ami Dambo tontu na na leer na nag Dambo nee na xamul sama numéro oui xamul sama numéro mais xam na ma te loolu dinaa ko leeral ba mu leer nañ demee dugg ci biir palais bi buntu bu ndaw bi ñu génn xamul li tax ma jaarloo ko foofu man xam naa man li tax ma jaarloo ko foofu yëf yi dina leer naa ko wane fu gën a miin moom ak ñu mu àndal kon nag wax bi dina leer ba nga xam ne ne yaakaar naa loolu su leeree ba nañ dootul jël kàddu wax ci kanam askan bi ak nu mu bare wax wax suboo wax ngoon wax guddi wax bëccëg ñun ñu géwél yi sax bareetuñu wax géwél yi nag géwél sax bëri ku ñu wax mais su ma paree ak ñoom dama na ñooñu. Merci. Chers collègue la parole est à notre collègue euh, Sanou